atelier bi day ñëk ci euh, une série d'ateliers, bo xamanteni bi moy bu ñëk waaye fas nañ ko taxawal ci l'ensemble des régions et l'ensemble des départements du Sénégal té évidemment ma wat ci question suivi bi bi bi gouvernement jëlé ay mesures pour yombal mesures euh, manam restrictions yi ñu doon wax ci dem ak dikk bi ci walu mbas mi fi am yalla na fi jógee jàmm euh, ci walu woowu président yi taxal na maintien am na du ko maintenir moy lan ñuy tëj marché yi de manière régulière pour diko pour diko pour diko nettoyer nga xamanteni kon question bi suivi bi kon ñewna ndax lu mu bon bon bon autorité yi muy maire ak muy muy préfet ñoom dinañ taxaw pour marché yi buñ ci eggee ñu mun koo pour nettoyer ko donc forcément nek na ci dans dans dans la durée mais liñ bëgg mooy baña baña nek lool rek moy ñi anticiper c'est-à-dire vraiment moy mooy sens formation bi xol déchets yi sax nan lañ koy mëna valoriser.

ñom ñoy membre comité yoy comité yoy évidemment euh, monsieur le maire wala les maires ñoko installé jël arrêté arrêté Bob évidemment tamit lool lepp contrôle légalité bi euh, préfet wala sous-préfet moo koy def lool moo tax it euh, ñu nek sama ginnaw et puis li ñu bëgg it mooy wane leen ay mu baña nek lu théorique rek moo tax ñu jël directeur central du du directeur général du marché central au poisson bo xamanteni amna ci expérience bu wër boo xamante ni ku xamul marché poisson ay at ci ginnaaw ak nim mel ren nga xamanteni ni def na ci ay jéego te yit li ñu doon wax évidemment maa ngi anticiper peut-être ci question bi nga mën poser moy question suivi loolu tamit moy question bo xamanteni mom dina ko mën aborder pour wan ko acteur yi ci nan la ñuy sayto question boobu. niñ koy nasee rek déjà wane na euh, euh, euh, suivi bi ben waxna naa arrêté municipal moy instituer comité bi ñi nekk ci comité bi ay volontaire lañ kenn forcé wu leen donc forcé nit ki it bu la dara neexul doo ci nekk euh, ñaarit lii ñuy def yëpp dafa nekk ci cadre benn projet public programme public lu ñu woowee programme Sénégal euh, zéro déchet muy programme présidentiel président taxawalan ko ci moom la ñuy jëmbal évidemment ci wàllu suivi bi it UCG partenaire la mi ngi fi moom tamit mi ngi yàgg na liggéey ak marché yi sax ci nan la ñuy saytoo euh, wàllu wàllu wàllu set gi ci ci ci wàllu woowu évidemment ensemble de mesures la ñun ñi ngi def euh, docteur Jamaï, mi nga xamanteni moy moy présider euh, atelier bi dafa am ben canevas bo xamanteni dañuy dañuy suivre comité yooyu di xol tamit de manière régulière nan la nekk ci terrain bi ñom buñu bay bàyyi ñu duñu bay te yaakaar na ñom duñu bàyyi